asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 2 septembre 2020 ñoo ak ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu lamb nag moom tey fa mu xëy ñëw fenn la maanaam daal fi mu nekk nii olof njaay dafa am li muy wax mu mel ni ki diggante Gris Bordeaux ak ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue coow li nekk ci seenu diggante nag ni mbir ma day wax ay waay jàmmi la nar a doon ndax nag Gaston Mbengue palaam ya mu am yëglikaay bi di sunu lamb tey ñëw na xalaat ci andil ñu ci loo xam ne daal jàpp na ne su Gris Bordeaux li nga xam ne moo di avance bi wala mu jël la nga xam ne moom la ko Gaston Mbengue joxoon nangu ko jël ko daal Gaston daa mel ni am na yeneen yoo xam ne ubbi na ko bokk na ci boo xam ne nii moo di Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier maanaam jël Bombardier boole ko ak Balla jël Eumeu Sène moom mu boole woon ak Bombardier boole ko ki nga xam ne nii moom moo di Lac de Guiers numéro 2 mel ni ki daal loolu la ñu yëg li kay bi xëy tey xamal ñu na ne di Gris Bordeaux moom ko di ni ki nag yëg li kay ñëw na tey ci loolu leneen loo xam ne ni fi mu nekk nii itam coow la ci a remplacer moo tax Matar Ba itam yëg li kay bi na fësal ko laaj moom lan lay joué ci mbir mbir mi nga xam ne nii moom lañu nekk fi mu nekk nii keneen koo xam ne nii moom Baye Ibra Loum lañ koy wax di ab inspecteur sportif boo xam ne nii dem na retraite Baye Ibra nag moom la mu xëy xam ne daal nee na kii di Maysa Ndiaye wala Bira Sène nee na jàpp na ne ñii moom ay profil yu baax lañu ngir jiital li nga xam ne moo di làmbi réew mi loolu moom la xëy tey di ko wax keneen koo xam ne nii moom Laurent Diouf lañ koy wax moom nag moom mooy président CRA ba nga xam ne moo nekk ca Kaolack moom nag daal seen conditions yi ñuy liggéey daal la bëgg ñu xoolaat ko daal teg leen ci conditions yoo xam ne daal yu gën a gën lay doon ngir seenub liggéey gën a mën a avancer jëm ca kanam loolu mooy waxe ka nga xam ne nii moo di lora ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay boobu nga xam ne moo di sunu lamb itam ñëw na ci écrit boo xam ne nii wala école boo xam ne nii day yàggul waaye daa mel ni wuyoo na muy jëf soog nekk ndax nag yëglikaay bi ñëw na ci ñoom ak onze victoire trois défaites ak benn match nul boo xam ne am nañ ko moo di Kër Massar fa la baase waaye daal mu ngay dox ka nga xam ne di orton moom yëglikaay bi na fa ko balisé maanaam bale ko moom set wecc la def lu fa jaar fel na ko dal di dem moom orton ci écurie boobu ñuy wax jëf soog a nekk fa la ne a ba nga xam ne nii fa la taxawee muy Bour Sine numéro moom itam mu ngay wane a baax boppam Valérie ay daan ak dóor maanaam moom itam xale la boo xam ne daal bu jara bàyyi xel la ka nga xam ne nii tamit moo di booy melax moom itam mu ngay gën a leer daal di gën di melax muy leer naññ mu ngay wane boppam bu baax a baax ndax moom ñaari génn ya mu def yëpp ay ndam la ca séddale yëglikaay bee xëy tey ñëwuñu ci écrit boobu nga xam ne daal moom moo di jëf soog a nekk mel ni ki nag Paul bu daaru moom fi mu nekk ni moom combat ba mu mujje match nii la ci jële ak itam waroon a bëre corona ba jaar mu ñëw tax bëreetul yëglikaay bi xëy na nag dalal ka nga xam ne moom moo leen yore wala seen président wala ka leen di entraîné mooy ki nga xam ne nii moom moo di Modou Fall ma nga xam ne ni daal moom mooy jëf soog a nekk Modou nag moom la mu xëy xamle jàpp na ne bilan bi ñu am daal di onze victoire trois defet ak benn niil moom ne na du bilan bu baax ñu ne ko baal li ngay wax Modou ne na maa ko wax gënul ndax moom la mu jàpp mooy écrém waruñuy daanu daan daal la ñu war di def itam jàpp na ne sunu làmb door ba ca lañ teg seen i bët te jàpp na ne fi mu nekk nii mooy loo xam ne nii écrit yëpp moo leen motivé te moom ne na jël ko dong dong moo ko tere tax mu jàpp ne daal moom dafa yooyu mu am sax daa jàpp ne waru koon koo am lépp ay ndam daal la ca waroon a am moom gis-gis booba la xëy tay am ko ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ci bilan ba nga xam ne nii moom lekk rem ba yore mu mel ni ki ba tey bu ñu demee ca Leewtoo ki nga xam ne nii moom moo di wulli numéro 2 wulli nag moom ne digganteem ak Issa Pouye daal ne na combat ba moom parce que daal taxaw na ka ko tëgg nag du kenn ku nga xam ne ni moom moo di mbër mi fi nekkoon te dëkkoon Pikine ñu doon ko wax ki nga xam ne nii moo di Cobra Cobra numéro un daal léegi moo nekk te Suisse nekk promoteur moom nag moo tëgg diggante wulli ak Issa Pouye wulli numéro deux mu nga ca Leewtoo TV Leewtoo point moom lan fay fekk mooy góorandooy ak jeune amateur yi nga xam ne ñoom la àndaloon ñoom Mor bu Parcelles Mborok ñoom Ibra bu bébé jul dëgg yeneen gaa yi ca des ñoom Abdou Salam ak ñoom ñépp daal defoon nañu ab délégation dem tam xarit ba bët set maanaam dimanche ji ñu génn ca Fass Mbao seeti Mbaye Guèye jàppale ko ci la nga xam ne nii moo di wéradi ga nga xam ne moo ko dab ñoom daal yëkkati nañu la ñu am moom dajale seen i déem ak seen i débat déb dajale ko jox ko ka nga xam ne moo di Mbaye Guèye jàppale ko ko mel ni ki ñoom loolu la ñu def ba tey bu ñu continuer dañuy jóge Leewtoo point dem record record moom kan fay fekki moo di mbirum Gaston Mbengue ak ki nga xam ne nii moom moo di ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux mel ni laaj la loolu mooy ba waaye nañ leen ko waxee woon record itam noonu la ko gisee de nee na ki nga xam ne ni daal moo di Lac de Guiers numéro 2 boo sàgganee day mbir mi moo ci ame ji lu neex ndax boo sàgganee moom ci lay ame ji adversaire bu fekkente ne Gris Bordeaux diggante ba Gaston Mbengue maanaam seenu diggante ca combat ba tas na ne na boo sàgganee bu keroogee daal li am ba des moom kii di Lac de Guiers 2 moo ca nara ame ji xéewal loolu yëglikaay ba moo xëy tey ñëw wax nu ko mu mel ni ki ba tey bu nu continuer ci yëglikaay boobu nga xam ne moo di record mbirum Alioune Sarr ka ko war a jël place am ak mel ni ki noonu dégal moom la mu jàpp ne na Cheikh Tidiane Ndiaye wala Babacar Diouf ne na ñii moom ku ci nekk mën ngaa jël place bi keneen koo xam ne nii moom mu ngi ci yëglikaay bi nga xam ne moo di record ba tey di libidoor bi nga xam ne moo nekkoon graaf te léegi mu ñibbi kayaar moom nag moom lambi simple ja ak lam ca jot a def ren ñetti trophée ya mu gagné mu toll ci deux millions cinquante mille francs waaye itam wax na la ko ci gën a neex ne na ndam la nga xam ne am na ko fa nga xam ne moo ca joof yor ci kaw Ibou Ndiaye óbbali maanaam biir dëkkam ba mu ko fekk daan ko fa daal na loolu moom lu ko neex la ci li nga xam ne ni moom la gagné ba tey bu nu dellusee wala nu dellu fa nga xam ne ni moo di ca sunu lamb dan fay dellu lan fay fekk nag mooy ñaari entraîneur yoo xam ne ku ci nekk dangaa ñàkk ku la jegeñ muy coach su jamono ak coach su Moussa Fall coach su jamon ku ne xam na ne bokk na ci ñuy tàggat Modou Lo jamono yu toll nii maanaam daal sëram moo wàññeeku fan yi nga xam ne moom la ñu génn ka ca des tamit di Moussa Fall way juróom bu góor moom itam moo wàññeeku musaa Fall nag mu doon coach sa Balla Gaye bi muy bëri ak Modou Lo mel ni papaam itam moom moo génn àddina ñu doon ko wax ma code de Fall toll woon ci juróom-ñeent fukki at. yoo xam ne ni amoon na ko mu mel ni kon daal yàgg maar tey mbir ya noonu la jeexee coach su jamoon bu Modou Lo coach su Moussa Fall bu Balla Gaye wala boog ñi leen doon tàggat ñoom ñoo seen i mbokk wala seen wuyjur génn àddina ñu di leen ko jaale di ñaan yàlla yërëm leen te xare leen aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa Leewtoo TV ñu lay nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen nag si jàngatu aan bi maa ngi lay nuyu di lay fay Ndeye Coumba Fall di la bu baax a baax a baax yaa ngi reetaan de. tey fi nga génn. waa tey waa tey dama delloo cosaan nag xam nga dama di doomi séréer nag ah te je suis fier d'être moo tax tey ma génn fii delloo njukkal sama mbokku séréer yi xam nga bu ma séréer yi joxee lii yàgg maa sama caméraman bu ñaaw bi taal bi Cheikh Béthio Thioune mu Serigne Sall yi jox ma lii moo tax ma delloo cosaan nag ziar sama mbokku séréer yëpp Mor Ndiaye génn ci montar bi du mën a ñàkk <laughs> ah borom États-Unis d'Amérique daal yi jib seen borom seen génn ci carax yi kon may bëgg ñëpp. kon nag bëri ngay sponsor. waaw non macha allah macha allah. <laughs> yàlla yàlla xeeb doole nga ñoo baax rek waaw. <laughs> ni ñëw ñëw si jàngatu arène bi. Mhm, am na solo te nag yaa ngi si ah, sax nga wéeru woon waaw démb a ñàkk des fois ah. nga dugg ci xam ne boo ci génne lu la ci dal moom maa ngi koy félicité bu baax baax ah. ndax xam nañu combat moom am na victoire bu rëy jël bu rëy la daan Babacar ci stade bi ñëw nag loolu moom am ay yëfam la moo ko moom kenn du ci xuloog moom dagan nag ko <laughs> ñëw nag si jàngatu arène bi ak sunu làmb sunu làmb nag eh, dafa ñëw nag tey nag ne ginnaaw nag bu Gris Bordeaux ne dafay fas yéene delloo avance bi nga xam ne moom la ko Gaston jox na nag soo moytul nag ki nga xam ne mooy Lac de Guiers moo nar am chance bu rëy ndax ñoom li ñu gis daal sunu làmb mooy Balla Gaye Bombardier moo war a nekk combat bi Eumeu Sène Lac nekk beneen combat ba war a xam ne moom moo war a remplacer ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux Babacar. waaw loolu bu fekkente ne Gris Bordeaux ak Gaston bi déggoo ñu moom. ay combat lu mën a possible la ndax yaakaar naa Balla mi soxna la revanche am si diggante mag bomba ndax bomba ji dafa daanoon nangoo ci moom roi des arènes te defe naa tey kon occasion lay doon ngir mu am revanche Eumeu Sène itam lak da koo daan benn yoon ñu niil benn yoon kon defe naa foofu tamit bu loolu mënee nekkit ba tey làmb lay doon waaye nag bu ñu sañoon <clears throat> li ñu mën a wax ñun mooy ci diggante Gris ak Gaston ñoom ñaar ñëpp ni ma ko waxee démb ay responsable lañ ay kilifa lañu ku ci ne tey ci la wala 96. kon yaa xam voilà kon 4 ans la ñu kon mu mel ni ñoo bokk génération ci côté carrière sportive bi nga xam ne ñu ngi koy def kon defe naa loolu nag war na leen mën a tax ñoom ñaar ñu régler parce que ñoom ñëpp ñoo benn la ñu ah benn la ñu parce que yaakaar naa ne Gaston Mbengue tey def na ci làmb loo xam ne dama ne mëntu cee def lu mu ci deful woon bu ñëwee kay xëy na day ñëw pour gën a mën loxoom pour affaire yi gën avancé. Gris itam tey fi mu toll ci carrière sportive am defe naa ne

mooy li ma la wax rek. waaye Gris Bordeaux tamit neexul delloo xaalis Gris ay ay waay la ñu xamante nañ de gis nga loolu mooy li ma la wax rek làmb mel noonu xam nga père gas moom yaa ma gën a xam moom day boo koy wax mu lay xori ba muy naaj. Hmm. Gris itam xam nga ko moom booy Medina la. yaa ngi dégg li ma lay wax xam nga ma ciy profité di nuyu waa Medina yëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm mais loo ci mën a dégg daal ñoom ñaar ñëpp xamante nañu euh, muy Gris Bordeaux comme ni ma waxee dem ak écurie ba mu nekk muy Fass xam nañu Gaston bu baax Gris li ko Gaston tëgg bëri na Gaston li ko Gris bëri na bëri na lu mu tëgg si waa Fass sax si boppam ah waaw demoon na sax bañ ko fii ji man maa ngi rappelé signature contrat ba amoon wala combat Yékini ak Tapha Guèye ba mu jeexee espace koto du ma ko mm-hmm. fàtte kera maa ngi toog bi ñuy tag bi yax ya jóob Yékini di see Gaston wala muy wax Gaston ne ko yow da nga faroon da nga farak waa Fass te defe naa loolu ñu bëri dañ ko daan jiñ Gaston te pourtant man gisuma loolu dama jàpp ne rek day tëgg lamb di promoteur mhm. waaw suñu euh, jógee nag si coow Gaston ak Gris Bordeaux am na beneen coow nag bu dox si diggante ki nga xam ni mooy jàppe wuñ ko sax coow mais papier commentaire moom la tey suñu lamb xëy def ko si ki nga xam ni mooy Matar Ba ministre des sports nee ñu nag Matar Ba moom lan lay à Matar Ba parce ñoom daal lañu gis waa sunu mooy si xalima démbale nee na Matar Ba daal dafay euh, dafay clignoter à gauche jàddu à droite parce que ñoom nee na information yu ñu am génne woon sax li nga xam ne mooy bureau bi peut-être euh, éventuel bureau bi nga xam ni moom la ñu nee na fas yéene teg si Alioune Sarr demee ñoom nee na si ay sources yu wóor lañ ko teg te nee na des fois nit di nga waxtaan ak kilifa mu jox la ay information information yi moom nga jël exploité ko moo tax nag nee na nu bind loolu xen nag boog xen démb boog génn génn euh, ki nga xam ne mooy Mataba xëy na boog suñu lam def si bi nga xam ne mooy genre tontu daa Mataba la xam ne kat bureau bi nii lay demee Tyson moo yore wàllum nit avec frappe Yaxya Diop yore wàllum nit simple Tafa Guèye ak Boy Kayré ñu dénk leen olympique ñoom loolu lañ mm-hmm. ne muy Iba Kane ak Dembélé ak mm-hmm. xam ne moom moo di euh, xam Boubacar Niang waaw ñoom ñëpp ñu leen di nuyu quoi waaw di wax ne tamit ñoom ñu ngi def liggéey bu parfait mais si lañ di gëstu def lu ñuy bind lu ne am na fu ñu koy teg yaa dégg ki nga xam ne nii nag moom mooy ministre bi di Matar Ba dafay am yoo xam ne nii itam yaakaar naa mm. ne ku ne xam ne ne kenn du ko ci présenté am na lu mu ci doon am na lu mu ci def kon Latif aussi ak ñoom Latif ak ñoo ñeneen nga xam ne xamuñu sa seen tur te ñu nekk fa mais yaakaar naa nag ministre bi bu fekkente ne moom daf loolu dafa am mu senn gars yi gis na dafa waxaat leneen lu bokkul ak loolu ah, loolu nag liñ ci mën a wax mooy bu fekkente ne noonu la demee ah liñ ci wax daal mooy ndey ko que bii moom waaw yónni yàgg rek yàggatul d'ici quelque temps moo xam ay jour la moo ah, mais su demee nag li am ba des nag moom mooy faw am ku jiite CNG ndax nag yaakaar naa ne Sénégalais yi compétence pour jiite ko pour man du ma ne amu fi fi mm, xanaa kay tànn ba la ñuy wax ku ñuy tànn kan lay doon mm. Baye Biraloum inspecteur des sports bu nekk retraite moom daal li ma gis naa comme li ngay wax rek ki ñu tànn moom yaakaar na Maysa Maysa ñaay bu président CRG bu nekk euh, Thiès ak Bira Sène bu nekk Kaolack ñoom ñëpp nee nañu ñoom am nañu profil pour jiite li nga xam ne moom may seen waaw may sa Ndiaye day wax dëgg yàlla muy moom wala muy Bira Sène Bira du moo nekk euh, Kaolack ok ñoom ñëpp defe naan ku ci ne raison ba nga ne yaa ngi fay doxal lamb bu baax a baax dirigé fa loo xam ne nii ah na muy doxe du ma ne lépp c'est bon de waaye am na ci loo xam ne daal baax na kon defe naa moom mi nga xam ne moom mooy bàyyi Ibrahima bu gisee ne ñoom te moom nekkoon na inspecteur sportif bu dem retraite yaakaar naa kon la muy wax du ko teg ci par par loola foog dama jàpp ne da koy wax parce que li tax mu wax ko mooy pour man compétence ñooñu la la indi teg parce que lu la waaye mën a wax itam ak koo bëgg mu rek ku mu mën a doon bul indi sama xarit la wala sama nit la wala ñoo bokk parti wala ñoo bokk écrit wala ñoo bokk gox non non non indil compétence su borom bu ma leeree ne tey Ndeye Coumba Fall mi ñu ngi koy jox CNC bi te ñu bokk micro bi te mu leer ma ne mënu ko du génn fenn di ko défendre te dinaa ak moom ci roq ne ko ñu lay jox mënu ko gérer nit ku ne boo koy jàppale da koy jàppale ci lañ koy jox nga fexe mu mën ca dara bu ca mënul dara nag nga ne ko bàyyi ko ci suuf mu dem wëri leneen la mu mën a doxal mhm. waaw nag bilan bu tey nag écurie yi nag seen bilan kii écurie Euh, jëf soog a nekk moom lañ jël def ko moom lañ def te dressé bilan nee ñu am na onze victoires trois défaites ak benn. say olof say olof nag daa mel ni setul xaw ma olofi naar la xaw ma olofi tubaab. dama di naar nag. Ah. voilà naar la jëf soog a nekk du xam nga lan mooy jëf. jëf soog a nekk. xam nga lan mooy jëf. mooy def. waa def dara. waa def dara. waaw olof dana balaa nga naan naam ne fa. moo tax ñoom nu mel ni seen tur daa mel ni balaa ñu lay mën di andil benn kii rek dañuy jëf ba pare parce que boo jëful doo nekk dégg naa Cheikh Ibra Fall doon na waxee ne mu ngi fexe ba fa muy mu ngi ji yàlla fay ay wax bàyyi jëf mel ni kon jëf am na solo lool yàlla na doon ju baax mel ni kii boobu du jëf soog a nekk nekk ca Kër ma Massar vraiment seen résultat baax na parce que 13 victoires benn match si nil su ma juumulee. Mm-hmm. ah ak trois défaites ak trois défaites defe naa lu ama am solo la mais taxul terewul Modou Fall ma nga xam ne moo leen di tàggat moom gis na ne loolu gënul ndax la mu jàpp mooy jàpp na ne moom écrit ba ah, war na am lu ëpp loolu. Mm-hmm. parce que moom daa jàpp ne suñu làmb door baa tax ak joué liggéey boo xam ne nii daal jàpp na ne moom bëggoon nañ lépp lii mu mel ni kii nag loola mu wax it mooy nit ki daal dangay ngay rëy bët. ñàkk na ay combat bariwul def na résultat bu baax pour man waaye moom daa gis ne mënoon na yem lépp loolu loolu la mu mm. dem fa nga xam ne mooy Leewtoo TV ak Leewtoo point nag ni nga fa ki nga xam ne moom mooy Wouly 2 euh, keroog bu ñu demee euh, Medina moom nag euh, ni mu ngi wax nag si si micro Babacar ne am na ay prom am na promoteur bi dox combat moom ak Issa Pouye foofu si Suisse match bi combat bi aller retour lay doon day am Dakar am aussi Suisse Babacar. waaw waaw Wouly 2 loolu def naa Cobra la moo jumul Cobra moo nekk léegi promoteur basé si Suisse moo bëgg ko mbam ak ba nee déggoo nañ wuli deux ma wax loolu mu ngi ca Leewtoo TV ñu ci profité di nuyoo fa mu ko waxee nag mooy fa ñu Baba Diaw fañ demoon ci Baba Diaw parce que Baba Diaw gis nañ kar sest bi mu def mooy lu rafet jën lu mat juróom-ñaari nag rey ko fa nga xam ne mooy ca Médina jox ko ñoo xam ne nii mérito nañ ko wala yelloo nañ ko euh, loolu muy lu am am solo maa gis sax fësal lu négatif kon pourquoi lu baax di desu ko fësal mbaax dañ koy fësal Cheikh Abdoulaat noon na ah géwél amul ku la defal lu baax nga wax ko mbaax dañ koy wax Baba Diaw loolu mu def ñun dey ba nu ko yëgee ndax woowuñu waaye ñun ba nu ko yëgee ñoo fa yóbbu suñu bopp wane ko pour que ëllëg ku mel ni man bu ko mënee ci koñam def ko parce que du moom rek dëkk Medina te ëpp fa alal waaye nag dafa def moom ca la mu am kon defe naa mbaax yooyu jar na di wane quoi waaw négatif yaa tax te ñu ngi koy fësal <laughs> réew mi daa métti di ndey kumba <laughs> leneen lu baax li nga xam ne mooy euh, euh, jeune amateur li ñu def aussi mi ngi si Leewtoo point net dem nañu seeti ki nga xam ne mooy sunu papa Mbaye Guèye bu xeetee ba si ëllëg si loolu tamit du la am mooy li ma la wax rek yooyu dañ ko war di wax di ko wane yooyu jarturu sa wane parce que nit ku wéra di bokkoon ci benn mbir ku mel ne mbay Guèye tey nga xam ne lamb waxuma écrifage dama naan lamb am na lu bare bare lu mu ci yokk ndax ci li ñu xam wala lu ñu net li mooy que ni mooy mbër mi njëkk a fay million si lamb ña ko bëri stade bi nga xam ne. Eh, voilà Demba Diop xaw waaw eh, kon defe naa kooku tey icône la ci làmb Sénégal su demee nag ba yàlla def wéré di dab ko eh, ay atam toll fii tey jeune amateur di ay amateur di ay xale ñu ci bari seetaanu ñu bëri mbéy gi dañ leen jeneen li tey ñu dajale seen alal dajale ko moo xam nu mu tollu dem fekk ko ba këram fas Mbao jàppale ko defe naa loolu la ñu soxla ci dëkk bi jàppalante te yàlla tax buñ ne nag yooyu buñ ko filmer buñ ko fesal pourquoi du ko fesal baax yi nañ koy filmer di ko teg

moom mooy Gris te day nag fekkee ne Gris nag li mu wax def na ko muy maanaam delloo avance bi nag est-ce que tey jii Gaston n'a pas joué et perdu Babacar. waaw li ma euh, loolu daal euh, li ma la wax rek maanaam pour mu jouer perdu que ni doxoon Boy Niang non moom soo am nekkul Boy Niang soo am mm-hmm. moo doon Gris Bordeaux. Gaston beeg defe naa tey ci làmb dama naan ci côté dox mbër ak nangam nit nag du xam lépp wala nga mën lépp waaye nag bëriwul lees a la mu choisir muy Gris Bordeaux Balla Gaye combat la te combat revanche la Boy Niang itam euh, Gaston bu ko bëggoon wala mu jaral ko wala est ñàkkul si ni dox na ko maanaam dañu déggowul waaye yaakaar naa daal moom dafa mel ni Gris Bordeaux ak Balla moo ko gënal loolu la dox encore une fois nag ñu ci ñaanat yàlla rek yàlla wis ci ndox mu sedd ba ñu continuer parce que ñoom ñun ñëpp ñoo far mm-hmm. na si papier boobu nee na euh, probable divorce entre ki nga xam ne muy Gris ak Gaston nee nañu est ce du si profiter comme la wax rek le malheur des uns fait la waaw bu ci xàcce amee ah, encore ñoom waxaat ñu ko maanaam mën nañoo sensé données yi indi Lac de Guiers 2 Eumeu Sène indi Balla Gaye Bombardier waaye loolu lépp mën na bañ a ama ça dépend ci diggante Gaston Giri rek waaw te yaakaar naa foofu xalaat naa ñu régler seen mbir dëggoon na ki nga xam ne mooy Pape euh, Boy Niang moom lu ma gis daal nee euh, a remplacer Alioune Sarr moom daal gis na ñaari nit muy Cheikh Tidiane Ndiaye nekkoon premier vice président bu euh, bi foofu noonu si CNG Babacar waaw mu mel ni déggoon loolu la gis mooy li ma la wax rek mbir yi moom ku ci bokk am nga droit joxe ci sa xalaat xam proposé ña nga jàpp ne war nañ ko mën a jiite waaye commission discipline et pénalité na waa jum Babacar Diouf du trésor voilà waaw <laughs> dëggal boobu Ndeye Coumba Fall yaa ngi reetaan de xam naa la nga kontaan tey waxu dëggal boobu daal li ñu ci mën a jàppe mooy li am solo daal mooy moo xam Babacar Diop Diouf la moo xam Cheikh Tidiane Ndiaye la kum si mën a doon na doon ki gën pour làmb rek man daal loolu laa ciy wax dëggal nag ci mbir yi la bokk kilifa la ci làmb bëri na tey di encadré ay mbir yaakaar naa bu waxee loolu am na droit wax ko waaye nag nañu xool ki gën rek. Mhm. suñu jigéen nag si bëri doon na nag jeexalee euh, daal ki nga xam ne moom mooy Libidor nee am na 3 euh, trophées am 2 millions 50 mille moom daal lu ma gis nee na bi ko gën a neex daal si carrière si saison bi ni génn mooy victoire ki nga xam ne moom mooy Ibou Ndiaye Obali bu mu demee jaar foofu si dëkkam Diofior loolu doo doo ko fàtte parce que Ibou Ndiaye mbër bu mag la ci lutte simple euh, ki nga xam ne mooy Libidor boobu itam du mbër depuis Italie aussi maa ngi koy nuyu Abdou Guèye Baye Fall jàmm gën Pape Cité aussi maa ngi koy nuyu na

xam ne nit moo matul encore une fois suñu soppe yépp du ñu leen mës a fàtte fenn fu ñu mën a nekk moo xam nekk États-Unis la waaye nag Mor Ndiaye rek encore une fois Mor Ndiaye borom montar yi kenn du yow di la nuyu di la ñaanal jàmm Serigne Diouf maa ngi nuyu maam Libaas Lo ca Barcelone tamit maa ngi koy bu baax a baax a baax waaw non a a di nuyu Serigne Diouf sama frère ca Italie Ndongo tamit maa koy bu baax a baax a baax tuuti yaay Sarr moom du ma ko fàtte kooku daa bokk ci man borom géej way borom waaw aas itam ci man la bokk tuuti yaay Sarr aasi Diagne ñoom ñëpp Awa Diop Touba ñooñ maa ngi ñoom danoo yàgg da ba may raam la woon ba fi ñu toll nii te yàlla na jàmm yàgg Sénégal